ci waxtu bi li ñu fi tax a daje mooy ñu inauguré ouvrage bi nga xam ne moo nekk fii ci Cambérène dafa nekk nag ouvrage bu am solo ñu tuddee ko autopont ak ay pàcc yu mu àndal pàcc yu mu àndal maanaam espace bi ñu toog bi ñu defaraat la bu bees waaye aussi defaraat rond point yi defar ay bretelles ba nga xam ni dem beeg dikk bi fii ci Carrefour bi dootul am yenn jafe-jafe yi waaye su ngeen gisee tey ñu am format bi demuñu dagg ay rumeur demuñu woon programme autopont yi nga xam ne ak point Sénégal réalisé te président Macky Sall santaane ko ñu def ko mu toll ci ñaar fukk ak pont ak ñett buñ ko jëlee xayma ni ñu war a def yëpp fii ci Sénégal Dakar am ci lu toll juróom-ñett environ mu nekk liggéey bu am solo inauguré na yu bëri dem nañu cité kër góor gi Saint-Lazare inauguré nañ ko Yoff inauguré nañ ko euh, aussi Lobat Fall def nañ ko inauguré ko donc cette fois-ci dama ni euh, comme ci travaux yi dafa am lu ñuy wax espace vert amène ay aménagement paysager yu ñu ci def dama bëggoon def accent bi ci loolu pour que askan bi mën ko téye mën ko préserver mën ko garder bu baax a baax te ci loolu loo tax maire yaa ngi toog maire Dali Fora ngi toog maire de la ville de Guédiawaye mi ngi doon toog qui représente euh, la mairie de la ville de Pikine mi ngi toog Ageroute mi ngi toog le ministère ak l' entreprise matière ñu xool ban taxawaay la ñu mën am ànd ci nag ak euh, le gouverneur de la région de Dakar bi nga xam ne ñoom ñooy waa administration territoriale pour lii nga xam ni mooy l' aménagement paysager ñu mën ko préserver parce que tey am na yu ñu jot def defar boo fa delluwaatee trois mois après da ngay gis occupation irrégulière yu fa nekk. clando yaa nga fa Jakarta yaa nga fa ñu ko warul nekk di jaay ña nga fa toog di jaay alors que espace la boo xam ni non seulement dafa war a dégager wu pour que circulation bi gën a mën a fluide waaye aussi c'est pour que nit ñi mën a fexlu nit ñu mën fa doxantu te kenn du la mën a gérer donc loolu mooy jafe-jafe boo xam ni il faut ñu mën cee indi saafara saafara si nag comme nu ma ko waxee léegi maanaam c'est les c'est les acteurs les maires l'administration territoriale et aussi AGEROUTE qui va accompagner pour ñu mën a préserver cet environnement là gis nga nu mu ñaandee nu mu rafetee voilà mais c'est pas pour toog jaay pour toog yoxlu la pour toog doxantu pour ñëw toog waxtaan mais pas pour jaay pas pour ñëw ay parquet ay jakarta wala parquet ci ay clando loolu moom dañ jël ay matuwaay yu mat sëkk pour que lu mel noonu bañ a yàq liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey parce que environnement dañ koy préserver dañ koy garder outils yi dañ koy sàmm soo ko sàmmalee mu yàqu donc loolu moo tax tey dama ni nañu def benn genre inauguration bi nga xam ni mettre l'accent sur surtout l'aménagement paysager et loolu moo am solo macha allah je pense que daañu ci taxaw bu baax a baax pour que jafe-jafe du am ci wàllum exploitation bi.